toppee ñi xam te ne génn àdduna loolu euh, maladie no temps bi moo ko waral bu ñuy xoolee Sénégal benn ñaar euh, benn ñaari décès bu nekk boo gis te benn bi maladie no temps bi moo ko waral le de la santé et sociale yoo xam ne comme loolu c'est urgent moo tamit daal teg plan d' accélération tuddee ko plan d' accélération 2021 2025 mu fexe ba daal di baral liggéey bi mais feebar yi nga xam te ne mooy tension ak yooyu ministère santé dafa ne nañ daal di baral loolu moo tax ñu teg plan d' accélération pour baral liggéey boobu nga xam te ne day fexe ba wàññi loolu mais nag wàññi ko nag dafa bëri ay fooy ay fooy ay poñ poñ mu njëkk bi mooy prévention primaire mooy fexe ba askan bi bañ fa yegg ba ñu am feebar bi mooy prévention primaire si naan si daal di leen ñaax ñaax leen si lekkin bu jaar yoon ñaax leen si euh, si def daal yëngatu ñaax leen si moytu lii di lii di euh, euh, cigarette ñaax leen si moytu lii di lii di alcool. tey on a le plan d' accélération boo xamante ne 7 milliards la la la la kii te ñu koy nekk déroulé instant bu ma nekk di wax nii pour wane ne kon def mais war nañ gën a yokk ba nga xamante ni gën a mun adressé ba que laaj tey ñu gën a waxtaan ak population ba nga xamante ne waxtaan bay yaatu ba ñëpp nekk fu mu nekk fu mu sori nga mun ko xam nga mun fay nga mun ko euh, approprier mun ko comprendre mun ko appliquer.